Euh, le doyen des juges Maham Diallo dafa jot a dégluwaat euh, Adji Sarr mi nga xamante ni euh, dañ ko doon laaj ci wàllum audio yooyu nga xamante ni MC Niass moo ko euh, daal di verser ci dossier bi pour wax ne Adji Sarr moo wax li moo wax lee ci loolu mu am euh, une liste bu ñuy wax une liste de seize personnes euh, selon laquelle en tout cas Adji Sarr aurait couché avec ces hommes là ñëpp di jàpp ne kii la ak kee procureur laaj ko démb mu ne non en réalité dama doon fen je connais personne et je n'ai je n'ai rencontré aucunement ñooñu nga xamante ne la wax ci liste bi loolu encore elle a prouvé que da doon fenn ci audio yooyu ginnaaw bu mu reconnaître ne moom moo nekk ci ojo yi nga xamante ne moom la euh, MC Niass jox juge bi mais toujours elle revient pour nous mentir. mais dossier bu doy war la mais euh, man déjà damay damay def la par entre ñaari affaire allez-y benn bi déjà euh, mooy que il ma semble que ñëpp d'accord ci ne Adji Sarr reconnaître na ni voix boobu moom la. bien sûr. mais li ci des yëpp nag je prends ça avec pincette. oui parce que. Euh, le fait que moom moo tudd ay nit ne dañu sëyeeg moom ngeen baal ma wax bi et cetera et cetera est ce que loolu yëpp noonu la demee loolu j'en suis pas sûr parce que loolu man dégguma ko nee na weddi na ko euh, weddi na ko mm-hmm. voilà mais nee na xamul leen mosul mosul la rencontré mais quand même wax wax na ci biir audio reconnaître na ni quand même tuddoon na leen wax la waxam la mm-hmm. mais nee na dafa doon fen mm-hmm. loolu c'est constant bu fekkee loolu moom ko wax vraiment lu doy waar lay doon et pourtant dañ ko bàyyi mu ñibbi ah comme si tàmm na di wax lu amul. non ñu bàyyi ko mu ñibbi non la nga ñibbi taxul. mais mën nga amul non non jotee ñu war la woo rek dañ la woowaat. ak tam juge bi jour na nga ñëw ci bureau bi nga signé am na yoo xam ni doo ni kii nii. mais du dem fenn de tant que dossier bi. Hmm. dossier bi euh, man dossier bi li ma ci jaaxal. Hmm. c'est-à-dire que ak ak ñi koy ñi koy coacher. ma mhm. loolu c'est évident. Mhm. man foofu loolu ba ma ci gisee benn benn benn benn femme bu def benn euh, genre féministe yooyu bu def euh, benn tweet moo njëkk a attiré attention moo ne dafa am ñu ko contacté woon wax ko pour ñu def benn euh, genre sortie mhm. pour ñu défendre ko. défendre Adji Sarr nangam nangam mais moom dafa leen ne man affaire bi dama ci sentir affaire ay politique te man droit femme en tant que tel lay défendre te comme lii aw ma ci ay preuves et kon kooku wane na ne déjà am na benn lobby bu nekk autour de Adji Sarr et cetera beneen bi mooy document boobu ñu defoon ba ñu génnee ko xaw ma RFI xaw ma nangam nangam français mooy sortie bu mu defoon pecc boobu mhm. nga xam ne du tubaabam mhm. nga xam ne kon yaa tout une équipe ba léegi soo ko gisee ni ñu koy présenté ci eh, ay jàppoom xaw ma ni koy waxee ci mhm. YouTube yeeg yooyu tu vois que hein, ok toute une équipe derrière même ci vidéo bu mu defoon tu as vu tu as une avec les coupures Ah, tu vois qu'il y a mhm. mais tout le temps dina am dara rek luy wane ni am na nekk ci ginnaaw et affaire bi demeewul ni ko bëggee baax na. luy wane ne c'est pas Adji naturellement. moo yow. Mhm. yow euh, euh, même colka eh, ku ñu violé ngay sol lu rouge lu moulin. comme kii ku nekk ci Oscar. waaw man ça m'a choqué ma déggee Maître El Hadji Diouf wax ne xoolal drinke la waaw boo ko tiimee nii rek da koy xemmee moo tax gis nga ma ne subhanallah oui mais quest que c'est ça. il nous divertit. mais voilà mais c'est du n'importe quoi léegi Adji moom mu nangu ñu ñu joué loo ko Eh, kon tam am na problème ana ay mbokkam aussi man loolu ma jaaxal la xoolal jour boobu muy ñëw si man dama ko yërëm au contraire ñi kii nii ki nekk ci wetam kooku boppam lay wane rek eh, nu mu tudd. Gabriel Gabriel boppam lay wane rek boppam rek lay wane boppam lay wane ci ci ci dossier bi. moom nee na féministe la dafa day xam droit de la femme. waaw mais droit de la femme mais euh, femme boobu elle pas n'importe ana ay mbokkam mën naa comprendre sax mu ànd ak papaam wala ay frère wala ay nijaayam ay cousin plus Gabriel kan ñoo xam ne moom dafa ñëw ci dimension boobu mais. dangay ngay waaru donc euh, koo xam ni yow ci dossier bi rek nga xamante ni Adji Sarr kooku fan la ko xamee lu dul ci dossier bi. kon dans ce dossier Adji Sarr est orpheline de sa famille. oui te teg ko orpheline sa famille tamit ah, dama yaakaar ne lu metti lu mel nii bu la dalee sa famille luñ la mere mere dañ taxaw sa wet ba set nu muy demee noonu la mbokk di mbokk du do nga juum rek ñu ñu abandonné la. danañ voilà kon nag euh, doy na waar. je pense papaam defoon na sortie aussi boo xam ni c'était nañ bàyyi affaire bi. mu sedd voilà gis nga bon. kon <laughs> léegi kon lan la wax papaam ak lu ko papaam wax. Mhm. Euh, daf may fàttali miis boobu doon wax dañ ko violé te après fekk du dëgg. yaa ji génn fii di jooy di wax ne papaam sax ne woon na bu mu ci ma ne ko waa yow yaa ngi weer sa bopp parce que papaam lii la ci doon euh, man mënuma comprendre dossier bi moo tax PV yi ñu wax yëpp xam nga kan di ma laaj ma ko yëpp du ay preuve parce que nit ki dina def déposition sax weddi waat ko. Mhm. kon ñu wax naan preuve mooy PV certificat bi yëpp du dara du ci preuve. mais Adji Sarr yi mu wax yoo xam ne ay contradiction la mhm. dafa bari mhm. ba nga xam ne koo xam ne dëgg-dëgg dañ la tooñ siif la kii nii war nga mën a am benn constance ci ay éléments yoo xam ne benn cohérence dans les dans les paroles mais na waat ne nañ bàyyi viol léegi na waat rek na sëy lu mën xam nga kon kooku sa param nekkatul viol <laughs> mooy pour weer ko war na ni seq naag man te du ma mooy question moralité bi waaw di ko mhm. juger moralement tu n'es pas un bon père lu ki sëyoon du ah bon ay doom extra extra koo xam ni daf laa violé te da nga doon waxtaan mu lay nem sama jabar lii la sol extra te nga ne violé ne la cinq fois te dawuloo ko mhm. jour boobu nga ne daf la violé xaalis bi mu la jox nga jël ko tranquillement dem dem jox ndaw sële écoute ba pare léegi <laughs> chaque fois xoolal non dam lii moo taxoon ma wax lu dul dëgg da da dama ëmb mhm. xëy na moom la mais dama ko waxoon rek pour mën a dem mhm. euh, kii léegi tamit kii dama ko doon testé mais je me pose la question mon cher on est dans quel monde avec yow sa sëriñ sa sëriñ bu fekkee matul sëriñ kon kay bu mu bu doon sa sëriñ. Ah, léegi da ngay xaar lu mel ni nga koy testé. est-ce que da ko accusé aussi nga ah? boobu nga xam ne mooy MC Niass parce que daf ne euh, MC euh, ko doon proposé euh, mariage et pare ne ko laajteel lu toll si 500 ou 600 millions comme ça bu ñu ko joxee nga mun ko dugal si sama. loolu dem leen ngeen laaj MC Niass lu mu ciy tontu mais ala kulli xaal. Euh, man je crois que dégg naa ci benn vidéo xam nga fan MC Niass di wax ne xaw ma gëjoon na ko gis depuis xaw ma combien daan nang nang bon euh, euh, ndëgg sarax daf cee bari mais li ma li ma xam daal mooy la principale accusée man moom laay gën a déglu li muy wax mais moom dafa bëri ay weddante ci waxam ak bëri lu muy wax ne dama ko waxoon mais du dëgg dama ko wax parce que bu baax mm-hmm. ci ci crédibilité am ci dossier bi donc finalement comme amul moo tax fi mu nekk kii nag preuve viol yu matériel parole contre parole mm-hmm. parole am nekk ça vaut pas ça vaut <laughs> parce que ah oui te amul ay preuve matérielle hmm. parole rek la am mais parole boo xam ni chaque jour mën na dañ euh, teste sa sëriñ mooy lan nit ki bu la matul sëriñ kay bu ko def sëriñ mais nga am dossier bu mel ni keneen est test bi tester ko pour lan loolu laa comprendre amul amul logique amul sens ko pour lan surtout ci wàllu religion croyance d'ailleurs yow sa sëriñ kay da war a loo ma digal ci dossier loo ma conseillé mais damay tester est-ce que pour nit ko jub la kon yow ba mu nekkee yow ba tey sa sëriñ <laughs> loolu wóor la woon court nañ nañ nañ nañ dem dem tëddi quoi donc mais nag am na question yoo xam ne tamit <clears throat> sëriñ bi ci boppam moom moo ci mën a euh, tontu mais daal Adji Sarr daal weddante bi muy def. ci mm-hmm. dossier bi depuis le début. Mm-hmm. ah euh, ak euh, li li li mu mujjee wax ci audio bi man la wala kii ñooñu mais lu tax ngay tudd ay doomu jàmbur même booy wax lu dul dëgg da ngay tudd ay doomu jàmbur ba public bi yëpp xam leen soupçonné leen ci loolu après nga génnaat ne non pour tester sama sëriñ la woon. mais li yëpp sax c'est passible de calomnie. mais mais mais mais ñoom ca tudd tam ñoom nañu. nañu am fulla défendre waaw je pense que lii tamit euh, benn affaire rek ma ko mun régler mooy justice. ñëw rek wax ne. exactement lii amul fulla fii la koy teg. bien sûr ah man bind naa ko sama poste man ne leen dossier bi moom. Euh, mën na nekk non-lieu mën na nekk euh, parquet bi classé ko. mu bañ a sax egg procès wax naa ko benn jour xaw ma fan ñu ne ma noo am na preuve yoo xam ni maître El xaw ma lan dañu ne du woon ci confrontation bi dañuy xaar procès ma ne ku leen wax dinañ dem procès. nit ñi tam dofuñu ñun tam on se renseigne. procès dafa dem procès. parce que c' parce que amagul élément yu ko may mu ne nañ dem procès. te te li mu dégluwaat Adji de. pour man bu fekkoon mi ngi doon douter naan est war nañ dem procès wala déet kii bi day gën a dem ci balance bu bañ a dem procès parce mënatul basé wu ci déclaration d'aussi. Adji Sarr bien mais, que des contradictions mais que des contradictions euh, aucune preuve certificat médical c'est pas une preuve et contradiction yi euh, bëri na donc on est là face à une euh, jeune fille. Euh, qui dit des choses yoo xam ni bon ba ma ko déggee tamit xoola euh, te sam san c'est pas dans son intérêt mhm. attaque personnelle yi bu génnee wax ni Sonko un mauvais père wala nangam man ba ma nekkee xale naa man wax naa ko benn nit ma ne ko xale te moom moo ko waxal boppam. xale boo xam ni tiitoo ci di maase ay nit yu ne dung ngeen baal ma wax bi. te moom moo ko wax. mu ne foofu tout moon monde se maase nu moo ko wax. body body waaw. yow xale buy maase ay ay ay ay ay magum yu nuyu kooku dootoo xale. waaw am nga rawatina rawatina nga jógee fa après ñëwaat xam nga jógee na fa à un moment donné. bien sûr. yow ñu lay violé fenn nga jóge fa après nga ñëwaat fa man ma foog ni fu ñu lay violé boo xasee ba génn da ngay daw dem ci say mbokk ñu dem police pour jàpp ko. et surtout boo nga ñëwaat tranquillement ki lay violé boo ko gisaatee da ngay tiit à peu près. waaw mhm. ah, non non non bu dee benn yoon mën nga wax ne daf maa jaay doole ëpp ma tiital ma. <laughs> dégguma loolu donc Euh, euh, Imam dina dinañ comme je suis pas le juge. ah, ah surtout mais mais quand même euh, dafa am y a le juge que de de conscience tribunal le ah, tribunal de la conscience. waaw alors dinañ laata ñuy ñëwaat si benn question bu bu bu bu mujj bi boobu mu xam naa dañu mujjee dem fële ci Guinée mooy mbirum. procès 28 septembre mm. justice bi euh, surtout après ci question Adji Sarr boobu nga xamante ne moom ngay wax donc euh, il y a trop de d'incohérence ak contradiction mm-hmm. alors euh, mais justement tey est-ce que war nañu mën également demaat ba war a dégluwaat Ousmane Sonko sachant que dañuy bëggaat yeneen information pour confirmer dañuy def noon lieu wala dañuy def justement procès wala classement non loolu juge bi rek moo ci mën a décider parce que su fekkee ni par exemple bi mu dégloo la dernière fois encore aji Sarr. Mm-hmm. daf ko wax loo xam ni dafa impliqué waat Sonko. juge bi bëgg ci ay clarification ak réponse Sonko mën na ko def. mais comme euh, il me semble que. Euh, li Adji saar wax ci audio boobu reconnaître ne voix am la mais dama doon tester sama sëriñ ñooñu mosuma leen xam gisuma loolu en quoi ça implique Sonko. Sonko bien sûr. waaw kon bu dee loolu rek gisuma lu tax. ñu ko waat mais juge bi. Mhm. toujours mooy décider ci loolu. d' accord euh, boo gisee may na dañuy dem Guinée dañuy dem Guinée xam naa même bu ñuy jël euh, avion dinañ fa dem par le biais n' est ce pas li xewoon en 2009 le 28 septembre 2009 mu amoon ay plus de 150 guinéens ñoo xamante ni dañoo dee ci. Euh, jàmmaarloo bi amoon euh, ci stade bi alors heure bi euh, mu am jugement bi fa am Moussa Dadis Camara ancien président bu Guinée mu ngi jàkkaarloo ak juge yoo xamante ni moom démb jot na xuloo sa ak ñoom parce que moom dafa expliquer bi muy nekk président ñooñu ay étudiants la ñu ci bëri juge yi mais ñooñu nee na lu tax ñu koy jàppee comme ñu koy manquer de respect loolu la gis fàttali ko justement moom ne nekkatuloo président mais vous êtes simple accusé un citoyen accusé qui est devant la barre du tribunal loolu mu nekk une leçon de vie pour les paysans aussi. waaw effectivement te te euh, Dadis Camara euh, euh, duma ni moo def lii wala deful loolu justement procès bi moo koy moo koy feeñal mm-hmm. les responsabilités sont certainement partagées depuis ba mu nekkee président mm-hmm. ba luy xew ci réew mi rek mënoo wax ne xaw ma ci woon dara wala sama yoon newu ci woon wala waxuma kenn mu def dara mm-hmm. donc buñ la waxee ne am na rassemblement mënoo wax ne information dañ ko wax rek ma naan sama café toog. bien sûr en tant que président. mais mm, mm, mm. loolu c' est aux avocats avocats défense euh, xam.